soxna su ngom bu borom daaru Baye Saliou soxna Alima bëri macha allah ak waa Hello Africa ñoom soxna Ndeye Tall boo Amérique di nuyu waa New York yëpp di nuyu koo xam ni rek yaa ngi ci Dakar ba social bu Amérique su rawatina waa Hello Africa di leen nuyu di gis seen taxawaay di nuyu soxna Awa Top Ndeye Absolo madame Coulibaly ah, ak suma rakk Mouhamed Amar ak Grif Sougou ak ñoom Xaadim Amar ak gaa yëpp ak ñi nga xam ne ñoom ñooy pour volonté jàppale Fadel ci liggéey bi yëpp képp koo xam daal yaa ngi suivre Dakar Buzz ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare mère maane bari nan ah macha allah di ñaan yàlla defal leen tawfiq ñëwaat si beneen cas boo xam ne sunu frère la tam mi ngi jóge ba dëkk ba ñuy wax Medina Yorul Falaado nekk ci village bu xaw a sori ah, ñoo fa doon dem mais ak liggéey bu xat bi tax ah, moom mu yombalal ñu ko far mu dikk di sant yàlla rek parce que bu dikkul woon nit ñun ñooy dem kon ndokk na ko yombalee lay dikk. Ah. muy feebar boo xam nag yàgg na ak moom di traité ak moom mu néew doole nag euh, lool ay bokkam daj ci lu ne euh, tax tey ñu yebal ko ci Dakar Buzz bu ñëw fi muy sàkku ndimbal euh, di wax rek ni lu ci waay mën ci lu baax nga def ko ci mais xam naa ni frère bi moom mooy gën a mën expliquer feebar bi nu mu demee parce que moom moo gën a maîtriser feebar bi par rapport ak moom moom lay laaj ñu mu tudd laaj ko feebar bi kañ la ak nan la bu baax maa ngi lay siyaar noo tudd. maay merci Fadel. nga tudd. Mm, maa ngi tudd Balde. Tidiane kii nu tudd sa frère bi. Eh, Ibrahima Bari. ñaataat la. vingt ans exactement. Euh, lii kañ la. bon lii mu ngi ko dalee depuis bu muy am trois ans donc euh, feebar bu nga xamante ne mu ngi tudd nooma feebar bi nag ñu bëri xamuñu ko waaye feebar la euh, français dañ koy ne rek dafay dévorer ay cellules. dafay lekk ay cellules kanam donc euh, jëmal ci biir gémmiñ bi ba finalement mu lekk tissu yi yëpp donc moo waral euh, xam naa léegi nii dina di nga gis euh, kanam bi nu mu mel donc feebar bi nga xamante ne chaque année d'après en tout cas organisation mondiale de la santé dafay laal cent quarante mille ndaw yi nga xamante ne feebar bi dafay dikkee ci malnutrition surtout malnutrition ak manque hygiène bucco-dentaire bu ñuy wax manque bi ko dentaire donc man nekkuma euh, spécialiste jàngalekat la donc yi ñun ñoo bokk dëkk euh, sama dëkkandoor la papam dafa gaañu donc euh, mu nekk ci famille bu néew doole donc yàgg na nag bu ñu buggoon jàpp si mais tey la yàlla dogal te tamit dafa fekkoon euh, maa ngi suivre léeg-léeg euh, Dakar Buzz euh, sa émission yi donc moo ma jox fit ma jële booy bi depuis dëkk bu ñuy wax Nguduro ci département bu Médina Yoro Foulah donc département bu gën a néew doole si Sénégal donc daanaka ñun ak fii ay côté huit cent kilomètres la donc tey looloo tax ñu ñëw fii ba Dakar parce que pour nga jëm. dem ci département boobu oto yu bëre duñu faral di dem parce que amuñu ay yoon donc euh, te yàlla dafa dogal ñëw ba fii vraiment wone suñu euh, feebar euh, wut ku ñuy jàppale parce que dañu amoon tamit benn mbokk bu ñu boole woon ak benn docteur bu nekk hôpital Fann spécialiste bu jóge Suisse donc bu mu defee consultation bi Euh, diagnostic bi dafa révélé ne Ibrahima il faut que ñu évacuer ko Suisse donc loolu mun ñu dikkee facture bu cinq millions donc euh, fakiir bu cinq millions ku nga xamante ne papam dafa gaañu mu nekk ci famille bu néew doole wax dëgg yàlla euh, moo tax bu ñu ñëw fii sakku ndimbal vraiment ci Dakar Buzz ak ñi nga xamante ñoo koy jàppale pour Ibrahima en tout cas feebaram bi moom tamit bés mu toog. Euh, mun a lekk ci benn mbool ak nit euh, donc euh, mun a naan fi nga xamante ne ñëpp fa la ñuy naane parce que Ibrahima ki ngay gis ni pour nga gis ko muy lekk sax problème la parce que kanam bi moo ko wone donc ñun ñëpp en tout cas kenn amul daal xol pour xool ko daanaka pour bon expliquer dafa xaw a dafa xaw a métti parce que euh, bu doon sa doom la en tout cas man maa ngi am sama doom kii ma àndal nii tamit sama jarbaat la moom moo ko gunge ba fii donc euh, dama buggoon tey rek Ibrahima mel ni moom mel ni moom parce que vraiment kii xale la rek donc xale bu góor la tamit mu ngi aspiré suba mu nekk borom kër te euh, wóor na ma ne bu feebar bi continuer nii Euh, fooguma ndax Ibrahima dina mus a nekk borom kër parce que dëgg-dëgg moom dafa dafa doy waar feebar bi dafa doy waar donc euh, loolu laa amoon li may wax en tout cas ci sàkku ndimbal ci dakaar Buzz dëgg-dëgg pour Ibrahima mun a ñëwaat ci société bi parce que nii nii donc exclu de société la donc euh, ay nit yi nga xamante ne dañ leen di joxoñ donc bu naanee ci benn pot fooguma en tout cas ñaari nit wala ñett dina ci naan donc loolu dafa dafa diis xëy na moom moo mun a expliquer loolu lu muy daj mais ku ko xool xam ne kii lu muy daj yàlla moo moo xam mais lu nit xam moom hmm, doy na. d'accord muy lu metti loo xam ni euh, euh, euh, c'est l'image qui parle mais bu loo ko waxul sax di nga xam ni. mi ngi ci ay problème parce que euh, dafa dafa xaw a doy waar Ibrahima maa ngi lay nuyu. Hmm? noo def yaa ngi ci jàmm. Hmm, jant hmm, dégg na olof. déggul olof. ah déggul olof pël la mën a wax. Euh, euh, kon xam naa ne sama wax moom dafay xaw a compliqué. te xam naa ne day metti mais feebar Ibrahima yow nan ngeen koy dundee. yéen a dëkk. li ci tàmbale daal maa ngi naan asalaamaaleykum euh, waa àdduna euh, maa ngi leen di ziar fépp fa ngeen mënta nekk euh, di ziar waa Dakar Buzz en tout cas Ibrahima dafa nekk koo xam ne suñu rakk la man mii di wax ak yéen sama classe la parce que Ibrahima daanaka jeunesse am yëpp bi muy nekk xale ñoo doon foowandoor ñoo doon defan lépp dañ ko doon dundee daal ak métit parce que nit ki euh, ak nepp lu mu mënti mel dara bu la dalee da nga war a wax euh, lu ci nekk Ibrahima yàgg nañu ak moom euh, à chaque fois bu ñuy foo souvent da ngay gis ni ci foo bi moom à chaque fois il est seul parce que pour mu mën a nekk ñun mën a def lu ñun lu ñuy def maanaam dafa doon ruus quoi dafa doon ruus da da doon nekk loo xam ne lu metti la ci moom parce que quoi ñun ñun saa yi bu ñu daan foo ak moom léeg ñu dàq ko ci yenn ci yenn def lu ñuy def quoi. parce que mënul bokk ci ñun euh, daa dem ba benn instant euh, ñu xam ne ça aussi ndogalu yàlla la ñun ñi di doon ànd ak moom ñu jàpp ko jàppee ko ni suñ doomu ndey ñu xam ne lii li ko dal la mënul na dal keneen ku dul Ibrahima kon que lii lay yàlla def euh, ñu ne garaawul bàyyi ñu jàpp si ñaan yàlla xëy na bés dina ñëw comme bés bii bu ñu doon xaar. mais nan ok d'habitude d'habitude moom buy lekk day lakkatu. day lakkatu ko parce que comme ni ngeen ko gisee euh, moom amul possibilité maanaam mën a ëbbi gémmiñam pour bu jëlee lekk bi pour mu mën koo jël loxo dugal ko ñun ñëpp di def moom mënu ko def moom buy lekk par exemple bu jëlee benn morceau de pain bu ko jëlee da koy dugal bu ko dugalee baaraam bi lay jël mu puus parce que moom mënul am euh, luy mën a xëcc affaire yi dugg ci biir tant que deful loxo bi loxo bi lay jël voilà loxo bi lay jël mu puus ko pour mu mën a dugg dem ci biir moom Ibrahima daal noonu lay lekkee parce que même man mii di wax ak yéen daan ma ko gis euh, muy lekk mais euh, le voyage la bu ma def ak moom sama m'a permis ma mën a gis lu bëri ci moom parce que bi ñuy ànd ci yoon dañuy ñëw euh, sama tonton mii di Tidiane moom ma booleek moom mu ne ma foog nga gunge Ibrahima ànd ak moom Dakar on est venu le lundi léegi bu ñuy ñëw dañ dem ba benn dëkk bu ñuy naan Birkama parce que lekkul bu ñuy jógee dëkk ba dama ko neex ndax ndekki nga mu ne ma noonu ndekki ma ma ne ko léegi comme que man xam naa situation am ma ne ko léegi dañuy dem ba garage ma lijjanti lu ñuy lekk léegi bu ñëwee ba nag ma jëndal ko lu muy lekk mais il était un peu gêné parce que xamul fu muy mën a toog ba mën a jël lekk bi lekk ko bëggul nit ñi ñëpp gis ko muy lekk après nii ma ne ko amu problème comme que maa ngi yëg yow ñu jéem a xool benn endroit bu ruke ma dugal ko foofu noonu toog di ko suivre mu lekk ba pare ci laa doog mën mi ci laa doog a gis carrément Ibrahima buy lekk nan lay def après ma ne ko comme que lekk nga ba pare léegi bàyyi ma la ndox nga naan mu ne ma d'accord am problème ma jëlee ko kii benn bouteille kii ren ñu lakkatu fu ñu nekkoon mais même buy naan euh, en tout cas li muy fournir ci effort dafay metti parce que mënul naan di sëgg ni ñëpp moom buy naan day sigi bu sigee day jël bouteille bi teg fii kii bi mooy maanaam euh, gémmiñ bouteille bi ci lay teg après mu sotti day mel ni ku jël benn bouteille ndox rek nga koy sotti ci benn siwo voilà pour expliquer daal bref Ibrahima ni muy dundee. Euh, c'est très compliqué c'est très compliqué comme que nit di wax dëgg daal euh, ñun ñi ay xale lañu dëgg mais bu ñu gisee koo xam ne euh, mun na jàppale suñu mbokk bi mu mën a génn ci li mu nekk ce serait vraiment une fierté pour nous parce que ñun tey loolu la ñuy wër voilà. jërëjëf bokk yi dégg ngeen lim ci expliqué te loolu même bu la ko waxul sax sa xel war na ko xalaat c'est parce que pour mu lekk c'est tout un problème. benn dafay gêné wu ci biir nit ñi parce que façon bi muy lekkee koo xam ne bu fekkee da nga dagg benn morceau pain pour mu lekk ko il faut mu accompagner ko ak baaraam mun ko pousse mën a lekk dafay xaw a compliqué mais sant yàlla parce que loolu lépp rek euh, sunu borom la sunu borom moom mooy xool li ko neex mu teg ko jaam te ñi ngi ñaan yàlla miy tege mu teggi ko ba mën a lekk ak euh, ni ko nit ngi di lekkee mais ñu ngi ciy tàllal loxo jaamu yàlla yëpp lu ci waay mën ci lu baax nga def ko ci Ibrahima vingt ans la am feebar bi dal ko di drainer ak moom compliqué na bi muy ñëw sànq rek maa ngi gis mu ngi takk masque am parce que dafay compliqué sax pour mu dox ci mbed ci rii bi parce que c'est très très compliqué parce que dafay jàpp ne ku ko gis da nga koy xoolaat parce que yàlla moo ko teg loolu mais ñu ngi koy gën a encouragé di ñaan daal ndimbal jóge ci yéen ñëw ci moom eh, bindal leen ko defi opération nag nga ne 5 millions la. mu war a dem Suisse. waaw ah, lan ngay wax bon volonté yi koy seetaan Dakar ba ci mën koo jàppale mu génn situation bi parce que 5 millions tam bëri na bëriwul mais bu ci bonne volonté jàppee yàlla mën na ci def sutura lan ngay waxaat bonne volonté yi ñu mën koo jàppale mu génn situation bi. Fadel man daal damay ne ku nekk na xool ci boppam parce que tey Ibrahima Ndaw la donc euh, jarul sa euh, ñu expliquer torop ci maladie am donc ku ko gis rek xam ne kii euh, kanamam moo laaj. ndimbal donc euh, ku ci mun a jàpp ñu ngi lay ñaan nga def ci sa kent lay kàttan parce que kii man tey tey bu ma amoon cinq millions kenn du yëg mais malheureusement euh, man tamit sama doole tollul foofu gaa maa ngi def sama kent lay kàttan mais pour Ibrahima mun a nekkaat ci société bi foo faudrait que ñëpp jàpp si donc maa ngi woo ñëpp euh, ñu jàpp si dëgg-dëgg pour Ibrahima mun a ëllëg tekki comme ñëpp donc euh, ñu xoolee ko seen doom seen rakk euh, seen jaarbaat parce que tey moom wax dëgg yàlla ku seet Ibrahima rek xam ne kii moom pour mu nekkaat il faut que ku nekk si ñun jàpp donc loolu laa amoon li may ñaan. képp ki nga xamante ne da ngay seetaan Dakar Buzz wala foo mun a toll si àdduna bi rek nga jàpp si parce que fu ñu jógee dafa sori yomb doon saa ñu ñëw ba fii parce que Ibrahima même pour nga ànd ak moom e, problème la parce que e, bu nekkul peut-être temps yi nii ñu ngi jégg e, Ibrahima léeg dafay am benn. odorat bu muy dégager dafay gêner nit yi moom daf ko xam parce que feebar bi euh, manque hygiène bucco-dentaire la donc loolu dafay am lu muy génnee donc moo faral ci lu gën a bëre dafay daw moom ci boppam daf moom mooy daw nit yi donc dëgg-dëgg nit nag ku nekk Ibrahima bu ko xool nii tamit dafay yëngu ci lu bëre taxul tamit moom mu muy lakkatu saa su ne ci lu gën a bëri lekk bi rek lay faral di lakkatu mais dafay def ay activités yu bëri. parce que léeg-léeg nga fekk ko muy def animation. animation animation animation yuy DJ yi di def. Ah, waaw léeg-léeg nga fekk waaw dafay def tamit euh, mécanique. dafay boo ko joxee fii léegi sa moto mu defar mm. donc xale bi nga xamante ne dafa xarañ. dafa xarañ trop. mais même loolu par exemple ci côté animation bu demee animation du rek dafay topp suñu rakk yi nekk foofu ci dëkk àll yi bu ñuy dem animation parce que dafa bëgg a musique donc loolu yëpp pour mu mun kaa def suba il faut que vraiment lii dëñ te mun na dëñ vraiment mun na dëñ donc euh, buñ ci jàppee rek mun na dëñ donc moom tamit mu mu nekkaat vraiment euh, ñun ñëpp nga xamante ne lii lañ ko yéene. ñu mun ci jot waaw. jërëjëf dégg nga lim ci wax lépp Ibrahima nag sama communication moom du sori parce que euh, déggul olof pël lay làkk te man dégguma pël mais ñu ngi ciy tàllal loxo jaamu yàlla yëpp xam ngeen ni ngeen koy defee mooy cas bu ñu ci dugal leen nañ ci def numéro malade bi lu waay yéene may ko ko ku ko mën a jël en charge dimbali ko fayal ko opération bi moo nu gënal ku ko mënul tam lii sa wërsëg nga jël ko yónnee ko ko. dina ko dajale xool somme bi nu mu toll mun a démarrer pour xool nan lay mën a def pour génn ci problème yi mais daal soxla na ndimbal vingt ans la am di góorgóorlu lii daal ko ñu ngi ñaan daal képp ku ci mën a jàpp nga jàpp ci te xam ne lu ci waay def yàlla moo la koy fay jërë ngeen jëf lii moo nekkoon seen émission Dakar Social micro bi mi ngeen tàmm di gis la cadre bi Omar laa ci àndal ku ko bëgg a jàppale numéro dina ne ci baaru écran bi loo ko fa yónnee dina ko jot si jërë ngeen jëf.